sant euh, ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu ndox mi ak ministre yi fi teew yëpp di yu gouverneur de région yi ak directeurs yi ñu daje woon fi tey nag ci di waxtaanee mbiru ndox muy ndox moom daanaka mooy dund boo ko amulee rek dund mënut a nekk yàlla nag may ñu ndox ci biir Sénégal ndox mu xaw a bari waaye liñ ciy jëfandikoo bariwul mu am ndox moo xam ne dafay feej moom lañuy ñu waaye eau de surface am na ndox moo xam ne xëy na mi ngi ci biir suuf waaye ci ndox mi nga xam ni moom lañuy ñuy gis liñ ciy jëfandikoo bariwul la ci yàqu bari na moo am nag ay projet yu am solo yoo xam ne gouvernement bi def na ko ci ndigalu président Macky Sall ba nga xam ni tey jii ci wàllu approvisionnement wu ndox tane na li jëm ci doomu aadama yi waaye xam nga ne buñ dee wax ndox mbay mi da ciy bokk sàmm da ciy bokk napp da ciy bokk waaye it booy xëccu ndox mi am na ay coppite yoo xam ni mën na ko andi ci sunu dundin loolu moo taxoon tey bi ko ministre bi laajee ñu daje fi service yëpp pour waxtaanee ko xool projet yi nga xam ne dinañu may ci at yi di ñëw nan la ñuy def ba Sénégal ndox mi ñu fi am mën koo jariñoo projet yi nag am na ci ñetti projet yu am solo yoo xam ne ministre bi wax na ko fii léegi yoo xam ne dinañu may ci ndakaaru doonte tane na waaye mu ñu yokk ko bu baax a baax a baax ndax fii ak ñaari at ba ñetti at dinañu soxla ndox mu gën a bari te gis nañu pour nawet bi passé ndox mu bari dina yàqu ci biir ndakaaru dañu war a def nag fii ak ñaari at wala ñetti at léegi lañ koy waajal ndax ay projet yu diis la yoo xamante ni faw ñu waajal ko léegi liggéey ci léegi ndokk nag bi ci ministère bi nekkee moom beneen yeneen projet yu am solo yoo xam ni dafa war a soppi xar kanamu Sénégal ndax li ñu am ci ndox te di liggéey rek ni ko ministre bi waxee léegi ñeenti weer ci fukki weer ak ñaar ci at bi te xam ne ndox moom buñ ko xëccee dinañ ko mën a jariñoo te it dinañ mën a liggéey di ci dund at bi yëpp moo xam ci wàllu sàmm moo xam ci wàllu napp waaye ci wàllu mbay ak euh, xale yi kooku buñ ko euh, defee tey dina am lu bari loo xam ne dina ko soppi euh, te dina am ay gox-goxaan ay ak ay yoo xamante ni tey niñ ko waxee léegi ci wàllu Fatick ndox xaw na fa manqué ci booru Fimela wala ci biir Ferlo loolu yëpp projet yi buñ ko taxawalee incha allah dina tax ndox mi gën a bari waaye it njëg yi gën a wàññeeku te njariñ bi nit ñëpp gis ci seen bopp moo xam ci zone yu mel ni Kaolack la walla Touba wala zone yi gën a jege géej gi comme euh, Casamance Sine Saloum euh, ak euh, li ñu ko waxee léegi ci ci ci ci Fatick kon projet yooyu incha allah yëpp tënk nañ ko la muy jar xam nañ ko liggéey bi am na ci yoo xam ne tàmbali na liñ doon def rek mooy. coordination ci gouvernement bi pour que projet yi mën a ànd ndax bu nekkee da nga ut yoon bu ndox di jaar war nga xool ndax ni ñuy sàmmee fii ndax du am lu mu ci yàq kooku foog nga xool ko bu baax a baax walla projet yi nga xam ni ministère des infrastructures mi ngi koy def moo xam ay tali la moo xam ay pom la ndax boo xëccee ndox muy dem di war a dem ci téeméeri kilomètre ndax du yàq ay tali yooyu yëpp foog ñu jàngat ko wala bu ñu ko dee def it dëkk yi muy jaar lan lay soppi ci dundinu nit ñi askan wi wala ci wàllu environnement lépp lu mu ciy def kooku moom moo waruloon waraloon ndaje bi tey may sant ñi fi teew ñëpp incha allah conclusion yi dinañ ko jébbal suba président de la république pour am les validations boobaa nag gouvernement bi commencé ci liggéey mais d'ores et déjà li ma mën a wax mooy ministère de l'économie projet yëpp gëstu nañ ko ba pare wax nañ ci seen xalaat commencé nañu sax yenn yi out financement bi waaye fi mu nekk am nañu li ñuy tubaab di wax une approche holistique maanaam projet bi dañ koy xool ba nga xam ni buñ ko tàmbalee du lor kenn wala boog la muy mënti lor it dinañ fexe mu doon loo xam ne lu ñu maîtriser la.